Touba dëkku président de la république la njabootu président de la république ñoo fi nekk ku ne xam na ni assainissement bi lim ci def ñu doon jooy am ndox ba génn seeni kër li koy firndeel rek mooy bu yàggutoo njaay napp bii nga xam ne mi ngi Touba sonal néew ju doole yi lool sonal askanu Touba lool te ku jaaxle ci Sëñ Muntaxa ngay jëm ngi tàllal ko loxo ngir mu wallu la président de la république ba mu yëgee coono yooyu dafa décaissé 47 milliards wala lu ëpp teg ko ci taabal ji ngir ñu dégager ndox moomu ba tey ba ña fa dëkkoon mën a am jàmm mën a am tranquillité mën a nekk ci dund gu noonu ci biir loolu nag ñu ngi tàllal loxo fépp fu waay mën a nekk ci Touba ak bu ci Touba tey wotee Touba ñu ngi lay ñaan jour élection yi nga woteel Benno Bokk Yaakaar ñu jël ndam li te loolu mooy suñu yitte tey mooy suñu yitte ëllëg suñ ngalas jigéeni Touba jigéeni Guédé am nañ ci yow yitte am ci yow yaakaar ànd ak yow fas yéene laa fal waaye buñ la falee itam na nga xam noonu nga bokk ci dëkk bi war koo moom yow mi ñu war moom gere ci nga bokk na nga xam ne kon waa gere ñu lay bàyyi xel bu baax a baax ndaw yii nga àndal ñu accompagner la itam Allo Dakar yi njëkk seen bopp yi na nga xam ni itam yow la ñu àndal waaye itam na leen bàyyi xel ci lépp loo xam ni luy jëmee seen yitte kanam la jeunesse bii fi nekk tamit di liggéey fii ci biir Guédé ñooñu itam soxla nañ la waxtaan woo xam ni buñ fi jógee danañ ko am yow ngir mën yaatal liggéey bi moo tax kon kàddu yi di sant di gërëm. say galas ñii toog ñëpp ay suba ñu gëm Serigne Touba ñu am dëkk bi xam dëkk bi tey dëkk bi dara ñu leen dem Dakar ak dikk ñii ay ndaw yoo xam ne dañuy leb ay oto si banque bi. ñii seen yaay teg si natt ñii seen papa jaay seen terrain am ay oto yoo xam ne ay 400 lañ koy wax ay ay à 26. ñu liggéey Dakar Touba dama ko dikk ay jafe-jafe yu métti su mbam dimbali ñu bunt bi sax ubbeeku na waaye sëñ baax rek bu si la jaar. ñu toog ak président Macky Sall mu boole ñoo président cinquante tey jàpp naa amatuñ benn jafe-jafe si yoon bi dara jafe-jafe amatu si yoon bi. lu dul fi ñu jàpp oto yi nañ leen ñu ngi dem jàmm ñoo si jàmm waaye seen mbir mu nekk defam am lu ko lu ëpp importance ndax oto bu ne mooy sa kër gi sa njaboot président Macky Sall bi ñu toogal dalal suñu waaye dina ko dig ay licence licence yooyu avant muy ñëw avant ñuy wax licence yi parrainage dafa lu mu mën. te ñu amul Touba yi kon bëgg nañ jàpp ci yi mu génn daar daal ndax ñun taxaw nañ engagé wu lañ nga waxoon dinañ ko def. sëñ Baaxe Bousso buñ taxawee fii di wax war nañ koo delloo njukkal bu baax a baax a baax a baax a baax waaye moom war na xam ni waaw. Euh, sëñ sëñ Baaxe war na xam ni ñun ay gor la ko seqal yoo xam ne luñ ko wax def nañ ko. te ñun doonuñu ay ay ay ay ñoo xam ni sàmmuñu seen seen kàddu ñun suñ kàddu gi lu ñuy sàmm la parce que tey ñoo yor suñ bopp ñooy dundal suñ bopp buñ ñu waxoon bu leen demati Dakar te dañu aloo Dakar sax fii ci dëkk bi yor nañ suñuy oto mën nañuy taxi te danañ am dépense te xanaa loolu kenn duñu ko tere leneen la ca tegee mooy li ñuy dagg ci commune bi pour mën a liggéey fii muy droit suñ ko daggee fii dinañ toog ci dëkk bi di liggéey duñ am kenn jafe-jafe waaye lii ñuy def nag di dem Dakar Dubaay ñëpp ko soxla suñ baa ngi nii toog dañuy jël ay yóbbanteem Dakar di ko indil fii mu ñuy jox yóbbante ñu koy jël fii di ko yóbbu Dakar mu ñuy boole ak njabootam ñu koy yóbbu Dakar te mënoon nañoo mel neneen ndax am na ñeneen ñu mel neneen mais ñuy gisoo fi kenn koo xam ne sax sol na sol bu débordé goo xam ne da nga ni kii da nga ko xeeb wala nga xeeb ko léegi leneen la ca tege mooy tey jii bu ma la doon wax limal di la limal mën naa laa limal mille personnes yoo xam ne ci ñun la ñuy ndax boo amee ndey am baay am soxla am doom doon 200 personnes ki lay raxasal ki lay defaral sa konu station mais loolu lu ñu bëgg ñun ñu ngi ah su romb nañ foofu mais na nañ ñu jàppale te li tax ñuy wax lii nag sëñ bi mooy dañoo xam ne mën nga ci dara ndax yow le président élu bii ci département bi nga nekk bi ñu jàpp nii loo ci loo ñu jàpp ni ñun liñ bëgg mën nga ci dara te bëgg nañu soxla nañ ko ndax moo ñu waxoon nii mën nañoo am licence privée l'espace privé boobu nag boobu ba léegi doxaatuñ ci benn jéego ñu ngi nii di doog ñëwaat ci yow di ci wax pour jëm ci waaye ñu di la xam ne daal am nañ ci sa jëmm ji yaakaar tey ñaan suñ borom àggale ko barke Cheikhul Khadim Serigne Galas damay sant yàlla bi ma taseeg yow fii tey muy première sortie bu Allo Dakar boo xam ne def nañ ko communiqué ko siiwal ko mu siiw lu tax ma ne damay sant yàlla mooy président Macky Sall ba muy wut état dama ànd ak moom ak délégation bi Basirou Diagne mën na ma seede madame Ndiaye Mari Mariama Diallo mën na ma seede ñu toog ci sa waajur woo tell wa sell wa yàlla na ko yàlla dolli leer mu ne ko li nga bëgg de boo ko fasee fii te muy dëgg ci yow te gën ci senegal suñ borom dana ko nangu. firnde ja mooy élection yañ ca teg ci la président Macky sàll jël état bu senegal fexe ba kuréel gi nga àndal ndaw ñi nga àndal nga fexe ba waxtaan ak ñoom wan leen aw yoon teg leen ci dëgg ba ñu agsi ba li ñu war a jariñoo ci réew mi ñu jariñoo ko ay fukki junne ak ay ñaar fukki junne indi wuñu fi de programme bu baax moo ñu fi indi président ba ma ko waxee loolu dane ma loo bëgg ma ne ko ñetti mbir laa bëgg nga bàyyi oto yi ñu jàpp ndax yaay président de la république sa yërmande àgg na ci nu le nit day def crime nga xëy gracé ko mu génn mu ne ma ak ban ma ne ko nga wutal ma licence waaye loolu procédure la boo xam ne gaaw du tey tey tey fii nga toog mu ne ma ak ban ma ne ko damaa bëgg nga alee yoon bi ba jàmm am ci yoon bi xale yi di liggéey ndax kilifa yi ñuy wàcce ci oto biir autoroute bi ñu am seeni i rendez-vous ñii jëm hôpital ñii di ay kilifa yoo xam ne amaguñu oto wala seeni i kilifa laa ñoo leen di yónni suñu leen suñu leen wàccee loolu day répété wu ci biir système bi ci Touba mu ne ma ñett yëpp danaa la ko defal fii nga toog ba ma fay laataa jóge ñett yëpp def na ko benn rek moo des mooy licence bi suur boobu jël na téléphone woo ministre de transport fekk ko muy défendre projet de loi bi nekk assemblée nationale mu bàyyil ko message ne ma Cheikh ba sëñ bu Boussa yow mi ma indil ndaw ñi àndal ak ñoom nga liggéey ñoom ba li ñu bëgg ñu am ko. ak bas basam. seen bas benn la. jàppale. ne mooy lu jàppale. département de Mbacké. département de Mbacké. ne Serigne Abo rakam ju baax ji dina ko jottali kàddum yëpp. waaye bala may waxal. waaye ne bala mu koy waxal. damay sant Serigne Baaxe. ne day sant Serigne Abdou Baaxe mii. ci ne ci fànn yëpp. ndax taxawaayam. bu rafet. ne ci wetam. di soxna Mariama Ndiaye. ne di sant soxna Mariama Ndiaye mais. goo xam ne. ne cant goo xam ni. am na fu mu tàmbalee waaye amut fu mu yem. moom ci Macky Sall. ne moom ci Macky Sall. moom ci APR. moom ci APR. xanaa ñaanal ko rek. xanaa ñaanal ko rek. waaye. waaye. fii. fii. la ci parti bi. ci parti bi. ci fànn yëpp. lu mu amul. ne lu mu ci dajul amul. sëriñ bi ne da lay ñaanal yàlla borom. yàlla mottali tolluwaay yi. yal na yàlla mottali tolluwaay yi. ah na ci rafetale ci kanam. di nuyu Bassirou Diagne. nee di nuyu Bassirou Diagne. boo xam ne léegi ne yéen ci sonam ngeen bokk. nee wax na ko léegi ni yéen ci sonam ngeen bokk. a xel gën ah, bi nee xelam gën cee dal bu baax. ndax Bassirou Diagne. ndax nee Bassirou nanu. xanaa léegi mu mat ay at yu bëree bëri. xanaa nee léegi mu mat at yu bëree bëri. sama rakk la. nee ca la. xarit la. nee xaritam la. ma yëg la. nee ku ko yëg la. nee ku ko fonk la. lii charge ñëw ci suñu kaw. nee charge bii ñëw ci kaw Mbalay sa. 2022 bii. nee 2022 bii. moom mii. na ci boo xam ne. nee yem na ci bànqaas boo la rek la ñuy seereel. sunu cant ci moom. sunu ci moom. bëgg na ñëpp yëg ko. waaye bëgg na ñëpp yëg ko. ci taxawaay bu rafet. ci taxawaay bu rafet. ci lu ma yittewoo. nee ci lu mu yittewoo. suba ak ngoon. guddi ak bëccëg. guddi ak bëccëg. waaye rawatina. waaye sëriñ bi nee rawatina. lépp lu mu xam ni. lépp lu mu xam ni. day jëriñ coalition bi. day jëriñ coalition bi. di jëriñ département bi. di jëriñ département bi. amu ci noflaay. amu ci noflaay. rek. firnde. nee doy na ci firnde. dem boo xam ne ñoo ko ànd. dem na mission boo xam ne ñoo ko ànd. daanaka ba 4 daanaka ba 4 heures du matin. ci loolu rek lañ nekk. sëriñ bi nee ci loolu rek lañ ne. te dara warulu ko. nee ca dara warulu ko. bëgg lii ñu jëm. bëgg lii ñu jëm. ci taxawaayam. ci taxawaayam. ak ñi mu àndal. ak ñi mu àndal. sunu borom defal ñu ndam. nee sunu borom defal. ñëw fii tey fekk si sëriñ Bakher Bousso ci programme bu am solo boo xam ne. ñun ñëpp xam nañ taxawaay bi nga xam ne am na ko ci jeunesse bu Touba. loolu waral sëriñ bi sol aw dàllam ñëw fekk si ko fii tey ak safoor yi nga xam ne ñoom la ñuy wax GIE dem ak jàmm dikk ak jàmm di alu Dakar sëriñ bi dégg na programme yu am solo yi nga xam ne wax ngeen ko fi li ci ëpp solo ci programme yi sëriñ bi jël na note yi. li ci topp rek mooy sëriñ bi mi ngi leen xamal ne mbir mi seen yëfi bopp la. parce que la jeunesse de la république dafa am responsabilité bu rëy rëy ci Sénégal waaye am responsabilité bu rëy rëy ci biir Touba rawat na ñun ndawi ndax ñun ay espoir lañ ci Sénégal wane ngeen ko ci seen solin wane ngeen ko ci seen doxin wane ngeen ko ci ay seen waxin ndax yiw gi ma gis ci ay safoori Touba gis ko ci taxawaay yi nga xam ne am nañu ko ci seen doxin ak ci seen waxin loolu yaakaar naa war na ne espoir lañ ci Sénégal ay yaakaar lañ ci loolu nag loolu nag loolu nag tax na président de la république monsieur Macky Sall bàyyi leen xel ci yu bëree bëree bëree bëre bëree bëri ku ne gis na stratégie yi mu def ci lu jëm ci ay financement boo xoolee li mu dugal ci dëkk bi ci ay financement ci Touba amul benn dëkk bu mu ko dugal ci Sénégal Touba président de la République dugal na fi Prodac bu Mambay Niang dugal na fi Moustapha Diop mu ñëw ak ay financement dugal na fi Segam familia dugal na fi lu mel ne promise finance islamique boo xam ne amul intérêt dugal na fi lu mel ne DER mais il faut ñu comprendre ne yooyu yëpp président di ko def lii sabab bi ngir ñu mën a dox jëm ci loolu wala ñu mën cee jot suñu wàll sabab ba ñun ñoo koy defal suñu bopp. faaw ñu nangoo dem ci tribunal yi yóbbu suñu ay kayit wut suñu ay GIE wut suñu ay entreprise wala nañ ñun boo booloo na nekk benn ngir mën a suqali suñu gox booloo nañ nekk benn ngir jot ci yóbbal yi nga xam ne président de joxe na ko. ngir dimbali ndaw yu dëkk bi kon loolu dama leen ci sonni rek waaye sëriñ bi gis na seen ay programme bopp yi nga xam ne am ngeen ko jël nañu note yi def nañu ko bu ngeen paree ni ngeen def mooy seen programme da ngeen koy def ci seen fichier fichier d'identité bi nga xam ne ci ngeen tijjee seen GIE ngeen wax li ngeen bëgg wax ni ngeen ko bëggee ak fan ngeen ko bëggee ngeen jël ko yëkkati ko jox ko sëñ bi sëñ bi teg ko ci loxol président de la République li ngeen bëgg mu bi ci topp nag mooy beneen bi ci topp mooy boo xoolee jàppandal gi leen président de la République defal ñun transport dañ ko war a fësal lim ñu dimbalee ci ay tali dimbalee ñu ko ci lu jëm ci ay yoon yoo xam ne lu mel ne autoroute Ila Touba rek buñ ko tegee baram mu raw ci ñëpp ndax projet bi ëpp doole ci état am projet bi ëpp doole ci ak nguuram Touba la ko jëmee muy autoroute Ila Touba te suñ Touba moo ko ñaanoon ci Matlabul Fawzayni boo demee ci moom loolu foo sëy ni am na benn bayit boo xam ne sëñ bi day ba yàgg mu ne yow suñu borom nag ma may buntu xéewal boo xam ne ku dugg biir Touba ci ngay jaar ngir mën a dugg Touba loolu président de la République Moussa Macky Sall moo ko réalisé beneen bi ci topp gis ngeen réalisation yi am solo yi mu def ci biir dëkk bi président de la République fi mu teg dëkk bi teg fa Serigne Touba teg fa Cheikh Mahamadul Muntaxa mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba ñëpp teg nañ ci seen bët nañu présider wax ci loolu sëñ Mountakha kenn gënu koo bëgg président de la République Moussa Macky fi mu ko teg ñëpp gis nañu ko boo xoolee discours am li ëpp solo ci ay discours am koy wax ne ko xeebu naa ci ñaanal la waaye maa ngi lay boole ak Serigne Touba mi nga xam ne moo am ak ñaanuk boppam. kon loolu day wane ne joxoon nañu li ñu war a doon kóllëre ga fi nekkoon démb diggante président Senghor ak Serigne Fallilou Mbacké mi ngi fi. kóllëre ga fi nekkoon démb diggante Serigne Abdou Lahad ak président Abdou mi ngi fi kóllëre ga fi nekkoon démb diggante président Abdoulaye Wade. ak ak Serigne Saliou mi ngi fi. kóllëre googu itam nag mooy dox ba tey dox diggante ak Cheikh Mamadou Mountakha ak président de la République Moussa Macky Sall. loolu loolu dañoo war a présider di dox te bañ di bàyyi xel wax yi nga xam ne dañuy yàq nit ñi dañuy yàq ñi ngi influence xelu nit ñi. li ñu njëkk def mooy surtout dañuy fexe ba dugal ci bopp nit ñi na bopp ndaw yi ngir ñu mën a ñu ñu bañ a gëm genn kaddu wala ñu bañ a faale kenn wala ñu def ay violence di yàq. ñun bu ñu dox ci loolu ñun politique bii ñu am nañ ko def ci politique l'islam